jërëjëf mbokki internet u MPROD TV mbokk yi ku ne xam na ne Modou Lo ak Boy Niang dañoo war a def face to face sëñ Maxtaar soxna ne ma xanaa xamoo ci face to face bii ci ngay xamee mbër mi nar a daanu le première janvier. am na ci couleur boo xamante ni dama koy bàyyi mu leeral ko mbër moomu di ko andi na Sénégal yëpp xam ne mbër moom mooy daanu danañ waxtaanee ba tey Sonko bi ko ñenn ñi seetee ñu ne Sonko mi ngi ci jàmm wér na sëñ Maxtaar ne ma déedéet day kamafule Sonko am na lu koy du ko wax sénégalais yi dinaa ko laaj loolee lan la kan moo nar wuutu président Macky Sall 2024 danañ ci ay leeral si Matar ne ma am na càngat goo xamante ni mooy càngatu deewaale ku ko sangoo dee rek moo lay tàggaleeg moom. nañu ko bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a xoos dugg ci dëgg dégg waxtaan wi borom bi du ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki MPROD TV. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani awlan wa axira zahir wa batin wa huwa bi kulli shay'in alim alhamdulilahi fatir samawati wal ardi alhamdulilahi alladi anzala ala al abdi alkitab wala najalo awaja wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyai wal mursalin sayidina muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi xaq qadri wa miqdaari azim yaa himmata cheikh uxduri lana bi haza al mahdari wal taatafi bi nazaratin taati lana bi zafarin dégg daaj sangat gii ngay gis lii gii mooy sangatu nuuniya moom la ñuy wax sangat gii ngay gis mooy nuuniya mhm. dégg daaj sangat gii nit daanu takk xare di jug di xare ji ci mhm. jamono te duuxul ne sangoo na sangat gii dégg daaj mhm. nit daanu samp dëkk wala kër te duuxul ne ñëw nga saalum ñu sangat la sangat gii ci lawtan lañ koy def cangat gi ci boppam lii law la ndoxum géej lay àndat luy law la nga jëfandikoo ko dégg waaw waxoon naa la ne fii kuñ dul liggéey amut képp ku yàlla bind ci àddina danañ la liggéey wala mën nañ laa liggéey waaye nag liggéey dal la nga jël cangat gii jëfandikoo ko yërëmuma la man yërëmuma say mbokk yi sonn ci sa sa tawat yow ki ma yërëm mooy ki dem ci sëriñ tudd fa sa tur tudd la di la liggéey laa yërëm cangat gii dégg daaj képp ku ko sangoo képp ku mosoo taxaw ci sëriñ liggéey la benn dana tàggali kook sagom fu mu toog fu mu toog di neefere boppam wala muy tuur ndox lii képp ku ko jëfandikoo ki dem ci sëriñ liggéey la moom mi la liggéey uhuh. fu mu toog dana gaanuwaay boppam wala muy tuur ndox wala mu feebar feebar bu gàtt génn àddina sangat gii buñ ko defaraan di ko jox nit dañ koy wax ne ko boo demee dajalal sa famille yëpp ngeen toog nga xamal leen ne yaa ngi fas yéene jëfandikoo gàllaaj gii bu dee ko fa ne di sàcc la nga mu bàyyi ko xel bu dee jabar ju fa nekk la te di la liggéey mu bàyyi ko xel bu dee doom ju fa nekk la te di la pexel mu bàyyi ko xel bu dee jàmbur la bu ne ca kër ga tamit mu bàyyi la xel ndax boo ko xas a jëfandikoo képp ku la liggéey ci àddina ñaar moom moo mën a mu tàggalikook sogom dof fu mu di tuuri ndox wala muy tuur la ma mënta tudd wala mu génne àddina àddina yaa ngi fàttaliku su ma fii su ma jotee bàggaaya xam nga xëppoon nga fi léegi en direct dama xëppoo woon defe naa ne waxuma ne duñu liggéeyuñu ma de waaye defe naa ba léegi maa ngi toog ñoom di wax képp koo xam ne nag jëfandikoo na sangat gii dégg daaj mboolem liggéey bu bon bu nekk sa yaram dana dëñ képp koo xam na jëfandikoo ni ko benn yoon nit dootul la mën a liggéey ci àddina te képp ko loolu liggéey dana mel ni ku jël tàng si dóor ko ci miir dafay delluwaat ci moom nga ma 2024 yàq nit dana jaral nit jéggi frontière ak frontière ngir liggéey ko ngir noot bakkanam dégg daa jamono jii li ma xam waxuma li ma dégg de wala li ma gis de li ma xam ci ay nit yoo xam ne man xam naa ne yàqu nañ c'est fini moom saye oowuma leen ngir koromp leen wala dama leen dama leen di jéem a yàlla wala dama leen di digal wala dama leen di waxal waaye xool naa leen man xam ci bàtti na ñoom c'est fini pare nañ waaw man xam naa loolu mhm. ay nit yoo xam ne maa ngi leen di gis si dëkk bi ay ay ay boroomi tur nag mhm. pare nañ am na loo xam ne nag bu soobee yàlla incha allahu rabbi fii ñu jëm mhm. balaa at mii di jeex. danañ toog ma jox la ay révélation ci 2024. waaw ay nit ñoo xam ne nii 2024 ci njëlbeenal 2024 gi ci commencement bi danañ faatu. Euh, wax nga ma tamit sànq ne ma am na ancien directeur boo xamante ni dafay am kenn ci jabaram yi dama lay bàyyi sa nga waxal ko sa bopp parce que net li ci làmb ñu borom la dàqee mbokk te émission bi ay révélation yi doy waar lañ ci nar def. dégg daaj émission maak yow. dama ne woon dama koy ba ndax ba ma ko defee coow li bëriwoon na ndax dama taxawoon ne gis naa benn promoteur boo xam ne siiw na lool ci Sénégal yàgg dee def nga yàgg fi tëgg ay combat yu mag mu ngi taw a tëdd nekk ci lalu hôpital la mbokkam yee yaakaar ne moo ko fa tëddaloo ak man li ma xam ne moo ko fa tëddaloo bokkut lii laa leen digal muy saraxu ñebbe nañ ko def buñ ko defee waxuma waxuma nag ne Euh, nit dafay dem ba toll ci sukkuraatul mawtu war a génn àddina ñuy jël dund di ko roof ci moom pour mu continuer dund déedéet képp koo xamante ne nii dee taxaw na sa kanam nit amut saafaraam amut gàllaajam ndax loolu mbiram yàlla la waaye nag olof njaay moo léebu ne lépp lu loxo def loxo mën na ko dindi mhm. te am na dee yoo xam ne nii du yàllaa koy def mhm. doomu aadama yi ak seen mbon ak seen soxoot fi mu toll ñoom ñooy jël seen loxo yii dem ci sëriñ wala ñu dem ci kat njabarkat wala kat fay leen ne la defal ma diw nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam bugguma jour tel wala weer wala at fekk ko fi loolu nag bu ko loxo defee loxo mën na koo dindi ma digal leen ne dem leen ngeen def ay ndabi ñebbe yàlla dimbale woon na ma it ba ma ko waxee mbokkam kenn ci mbokkam yi ku jigéen oo na ma téléphone laaj ma ma digal ko wax ko nañ ko defee mu def ko defe naa ne mu ngi dund ba tey te ñu ngi koy ñaanal yàlla it yàlla may ko wér yëkkati ko ba mu continuer mission moom njabootam njabootam yëpp loolu rek lañ ci jublu woon lii ñu war a waxi liñ ci jublu mooy laayee biir ki nga xam ne yàlla may nañu ñu gis ci moom lii ma bëgg a wax te képp koo xam ne dégg daaj dégg na suma vidéo bii bii vidéo bii képp koo dégg na ko partagé mhm. ba ki may wax jot vidéo bi xam ne man moom lay wax ndax bu ko jotee dana xam ne moom lay wax. Mhm. dégg daaj koo xam ne nekkoon na fi. waaw directeur impôt et domaine. ah fii ci Sénégal. nekkoon na fi directeur impôt et domaine. Ah ah. ancien directeur. ancien directeur mhm. nekkoon na fi. Mhm. dégg daaj. waaw ñaari soxna la am. kii ma lay wax. maa seet gis. mooy suma listixaar boobu nit ñi xam bu may def guddik ajuma bi ma seetee gis ñaari soxna la am mais dégg daaj moom su jugee koo ci soxna su mag si di dem ci soxna su ndaw si. waaw di fa ayee ji. bu ànd ak su ndaw si du yëg boppam. allah wax garaaw na ma ne. ñaari soxna la am. bu jugee ko ci soxna su mag si. di dem si soxna su ndaw si. bu demee ba ba mu des ànd ak moom. bu ànd ak moom du yëg boppam. mais bi wax ni garaaw na de. maa la wax lii ma ku def loolu. dëgg luñ def la. te bu weddee na luñ def la. yal yàlla may ñu tal ak fekkee. ba li may wax moom mu jot ci. ba laaj ma ko danaa ko wax fuñ ko def. man danaa ko wax ne ko waxuma nga ñëw de demal fañ ko def nga dem nga dindi ko. dégg seetlu seetlu leer nga ci wax da ci. seet ko gisee woon naa la dama am boo xam ne dama koy def ci at mi benn yoon. di ko defal ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu am tur. ma di leen seet. di xool seeni mbir ba ma ko xoolee. lii ma la wax nii loolu laa gis ci ki nga xam ne nekkoon na fi directeur. impôt et demande dama koy leer laa ni ñëpp di ma dégg am ñaari soxna su jugee ci soxna su mag ci dem su soxna su ndaw si dootul yëkkati boppam maa ngi koy laayee biir nag mu jug ci mu jug ci kon mën naa dañ mën na wér bu baax baax mën naa wér kon liggéey lu bu mu ci doon mënees na koo tojal te kort yooyu dégg dégg daaj korte mooy li gën a bon ci li ñuy def ci xeetu gàllaaj te bu la danee lu ne rek nu ne la mën a feeñ mën a mën a mën a mën a mën a manifesté ci yow te du ne la mën a def waaye nag xam nga wax jamono jii ci réew mi dafa yombut surtout ngay wax xam-xam mm-hmm. ndax dangay wax léegi ñu defee ne yow da ngay wax pour ki ngay wax ak wër si la wala seet si la dégg daaj mm-hmm. man dama koy wax addina mm-hmm. yëpp di ma dégg dégg daaj man awma soxla ci ministre man soxlawuma ministre soxlawuma directeur général soxlawuma ku yàlla bind ak lu mu la manti jox man xam nga kan lay wër doomu aadama bi nga xam ne man xam naa ne su ma jugee sonn ci moom ngir yàlla muy gëm ne wala mu xam ne man sonn naa ci moom ngir yàlla ñu faslante kóllëre te yàlla tax waaye du hut alal lay ut ci nit ndax yàlla moom moo ko amee moom moo ko wax inna allaha huwa razaqu yàlla moom moo yor wërsëg te mooy wërsëg moo koy joxe ku ko neex moo tax man yàlla dimbale na ma alhamdulilahi rabbil alamin se wëral fépp nag fii ci senegal alaaji dégg daaj waaw fépp foo xamante ne ni ni nit kilifa dañ ko fay tudd borom barke lañ koy wooyee wala borom alal wala mu bokk ci nguur mm-hmm. fu mu mos a fa rek moo xam hôtel lu mu seer seer rek man dugg naa fa tëdd ak ak suma wërsëg mm-hmm. moo yàlla jox mm-hmm. su ma demee ba màkkatal mukarama hôtel ya gën a cher man fa lay dem fay suma xaalis tëdd ñu may gis ma leen di gis ñu xam ne man lañ lañ yaakaar man lu ko raw laa yaakaar moom mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo tax ñooñu li faale wu ma leen li may wax nag ki nga xam ne moom la concerné su ko gëmee baax na su ko gëmut baax na waaye lii ma la wax moom moo am. tey dañu waxtaanee. Fatihatul Kitab muy saar boo xam ne dégg daaj. dafa ëmb lu bari mm-hmm. ëmb na ba ëmb. ay laaya yoo xamante ne nii wàccaat na te ci biir laaya yooyu ci biir faatixatul kitaab moom moo tax laaya yooyu wàcc dégg naa li ko commencé si bismillahi rahmaani rahim ba wala daali na lépp njëriñ la juróom xaraf mm-hmm. ñoo amut ci biir faatixatul kitaab mm-hmm. te juróom-ñaari xaraf yooyu noonu ñàkk ci biir faatixatul kitaab mm-hmm. képp koo xam ne nii yaa ngi jël tur yooyu noonu di ko liggéey moo xam da nga ko bind wala di wala di ko wér di ko booleeg ndox di naan doo mosoo dox ci àddina ba tële dab la. doo néew kattan. ci àddina juróom-ñaari tur yooyu maanaam juróom-ñaari xaraf yooyu tirim jàpp yi nga xam ne borom la saraar yi indi nañ ko. mooy fardu jabbaaru shakuuru zaabitu zahiru xabiiru zakiyu mooy juróom-ñaari tur yàlla yi nga xamante ne nii mm-hmm. moo jàpp ci juróom-ñaari biddiw yee ngay dégg ci ilmu nujuum mm-hmm. waaye mooy juróom-ñaari xaraf yi nga xamante ni amul ci biir faatihatul kitaab faatihatul kitaab ñii wax nañ ne ci bismillahi rahmaani rahim la commencé am nañu beneen waxit ne ci alhamdulillahi la commencé ah fu a nekk nag ala gayri zalika fu mu mën a nekk ci yooyu yëpp faatihatul kitaab sabhan min al masaani la ñuy waxtaanee tey mm-hmm. soo jëlee bismillahi rahmaani rahim mooy yow sos nga sa wax bismillahi sos nga sa wax ci tur yàlla soo demee ci biir alquran yàllaa ngi lay wax ne bismillahi mujriha wa mursiha inna rabbihi la ghafurun rahim ci képp koo xam ne dafay tukki mm-hmm. mën nga di ko def mm-hmm. yàlla wax ci alquranul karim mm-hmm. lillahi al asmaul husna fad'uhu biha yàlla ak asmaullahi al husna mi yi ko ci oo moom yàlla wax na ko ci biir alquranul karim soo demee ci biir alquranul karim ba tey ci rahmaani rahim yi da nga dégg laaya ba indil indil la ko huwa laahu alladi laa ilaha illa huwa aalimul gaybi wa shahaadati huwa rahmaanu rahim huwa laahu alladi laa ilaha illa huwa almalikul quduusu salaamun muminul muhayminul azizul jabbaarul mutakabbir subhaanallahi amaa yushrikuun huwa laahu alxaaliqul baariul musawwiru lahul asmaaul husnaa yusabbihu lahu maa fi samaawaati wal ardi wa huwa al azizul hakiim muy rahmaani rahim maanaam fatiha tul kitaab saar la ci biir alquran waaye ba tey mu ngi jëlaat ay laaya duga dugalaat lii lépp génnoo ci fatihatul kitaab ba tey maa ngi ci fatihatul kitaab ci diggante bismillahi rahmaani rahim ci basmala rek laa nekk léegi nag ñëwal ci alhamdulillahi rabbil alamin kon ci alhamdu alhamdu moom mooy ñeenti xaaji canti ñeenti yi nga xamante yëpp ñaar yàlla lañ ñeel mooy yan ak yan mooy cant gi nga xam ne yàlla moo ko sant boppam ak sant gi nga xamante ni yàlla sant na ko jaam bi ak sant gi nga xam ne jaam sant na ko yàlla ak sant gi nga xam ne jaam yi ñoom seen ñoom seen biir santante nañ ko muy ñeenti xaaji cant yëpp yàlla ne lillaahi ñeel na yàlla rabbil alamina moom mooy biram bi ndefi ah ci biir loolu mu amaat beneen rahmaani rahim benn rahmaani gi moom mooy àddina beneen rahim gi moom mooy yowmal qiyaama yàlla nee na arrahmaani may aji yërëm mbindeef yëpp ci àddina arrahim yi nag ma may aji yërëm ku ma soob man yàlla ca àllaaxira maliki yowmi diini may borom bés pénc ci keroog yowmal qiyaama te yowmal qiyaama buñ demee ba taxaw yàlla dafay wax ne tey kan moom mooy ki nga xamante ni moom mooy seen borom ñëpp ruux yëpp ruuxi doome adama yi laa wax de waxuma nag yéefar waxuma jullit wax ñëpp laa wax képp koo xamante ne nii ngëm-ngëm nekkoon na sa xol mhm. da nga wax lillahi alwaahidul qahaar bu ko yàlla laajtee mhm. bu yàlla laajee ruux yi tey kan mooy seen borom tey ki nga xamante ni moom moo leen fi dajale ruux yi nga xam ne dañoo ñemee taxe dañuy wax lillahi alwaahidul qahaar mhm. yow ma tubadalul ardo xayra ardi wa samawaatu wa barazu loolu la keroog loolu la royu sell yi di wax maliki yow mi diini boobu moo taxaw foofu léegi nag yaa ngi ñëw ci li nga xamante ni mooy xolu fatihatul kitab dama lay wax njëriñu fatihatul kitab soo ko liggéeyee martaba yi nga xamante moom ngay am yow ci biir yoolu liggéey bi ngay liggéey fatihatul kitab door laa wax ci njëriñ li ma bëgg wax ci moom ñëw na nga ñëw na ci xolu fatihatul kitab mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dégg daaj iyyaka na'budu loolu moom mooy ubudiya dégg daal iyaaka naabudu ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñëpp ci biir maanaam. képp kuy jaamab yàlla rek yaa ngi na iyaaka naabudu foofu yàlla amul fi xajj amul fi seen. képp koo xam ne da ngay sàbbal yàlla ak noo ko mënti sàbbalee rek yaa ngi ci iyaaka naabudu ndax mooy ubudiya ñaari pays lañ nag. mulkul ak malakoot. mulk gi moom mooy yàlla malakoot gi moom mooy jaamam yi. Uhuh. ñoom ñaar nag ñoom ñoo taqalantoon ñoo ñoo nekk benn. Uhuh. benn nag manta dem bàyyi sa morom mu ngi mel ni nguur ak nguuru nguur gi moo fi taxaw ki ci nekk moom mooy ki nguuru foofu mooy eh, ñaari maqaama yi jaam bi séq ak boromam mooy ubodiya ak rubobiya ubodiya jaam yëpp ñu ngi ci biir maanaam mindaafoon yëpp ñu ngi ci biir ñi nga xam ne dañuy sabbal yàlla moo xam njanaaw yi moo xam bàyyi ma yi moo xam doomi adama yi mindeef fi moo xam jinne yi ñu ngi ci biir iyaaka na abud mooy yow yàlla yow dong rek mm-hmm. yaa yooyu jaamu mm-hmm. waaye nag wa iyyaka nasta'in mu wax ci alquran wa iza saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai iza daani falyastajibu lii wa liyuminu bihi laallahum yarshudun yàlla na yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ ma la laajee man yàlla ana ma iza saalaka ibadi su bu la njaami yàlla yi laajee ana yàlla mu ne lu leen jege la fa inni man yàlla qaribun ku leen jege la ujibu daawata daai nag danaa nangu seen ñaan iza daani suñ ma ñaanee mooy wa iyaaka nastain foofu noonu fala jaam bi bàyyee boppam yàlla mi nga xamante ne ni moo yor léppam moo yor léppam yor léppi képp kum xam fale la di bàyyee boppam yàlla nag ne ko yow yàlla nag maa ngi maa ngi nii man sa jaam yow yàlla yaa yor suma ndogal yaa yor lépp ci man lu la neex ci man yaay def defal lu neex léegi nag dangay gis ne foofu ñaari maqaama yooyu janoo muy iyaaka naabudu wa iyaaka nastain fi jaam bi nangoo moom jaamab yàlla la yàlla tamit nangul ko ne man nangu naa sa ñàkk jaam gi mooy wa iyyaka nasta'inu yow yàlla yow rek yow kese yow dong. waaw yaa yeeyoo sakku ndimbal. la ca tegee nag moom mooy yaa ngi dégg ihdina siraatal mustaqim mm-hmm. nga demaat ci biir alquran ba tey ci li ma la wax ne faatiru kitaab riis gim riis mhm. da ngay gis ne ci biir alquran boo demee yàllaa ngi wax ci suratul baqara ne inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma baodatan fa ma fawqaha fa ama alladina amanu fa yaalamuuna annahu alhaqu min rabbihim wa ama alladina kafaru fa yaquluuna maada arada allahu bi hada masala yàlla ne yudullu bihi kadiran wa yahdi bihi kasiran wa maa yudullu bihi ila alfasiqin dégg daal nga gis ne iyaaka nahbudu wa iyaaka nastain soo fa toogee dafa neex lool ba nit ki fa jógee ko ba jeex ci jëmmi yàlla ji ba seey. waaw benn maqaam rek lay soxla mooy jublu ci yàlla moo tax mu ne ihdina siraatal mustaqim yow yàlla yéen nga ma jubal ci yoonu jub bi mhm. moom mooy lan yoonu jub moom mooy yoon wu jëm ci yàlla rek ndax wa tabi sabi la man anaaba ilay yàlla loolu la wax jaaral ci yoonu koo xamante ne nii jaar ci yoonu jëm ci man mhm. ah yàlla loolu la wax wa tabi sabi la man anaaba ilay mhm. bu ko defee foofu nag soo fa jugee dangay am beneen maqaama bu gën a kawee ci fooraay faatixatul kitaab ba tey mhm. ndax soo amee ihdina siraatal mustaqim ba pare toog ci istiqaama looy def mhm. dangay am siraatal lazina an'amta alayhim mhm. nga jisaat nag foofu gaaya nag ulaayika alladina an'ama allahu alayhim min annabiyiina wa siddiqiina wa suhadaai wa saalihin ñooñu ñëpp ay xeet lañ yoo xamante ne nii ci biir iyyaka na'budu ak iyyaka nasta'inu lañ liggéeyee yàlla ba jeex ca ubboodiya yàlla nag may leen nag ñu janoog yàlla jëmmi yàlla ji nag amu shahada ba nga xamee ne bañ gisee yàlla ba gis ne dara neewatut fi lu yàlla ñu ngi janoog jëmmi yàlla ñoom liñ ñaan rek la la moom rek moom mooy jub léegi nag yàlla nag ne leen bu ngeen jubee ba pare nag mu ne nag ñu ne nag lii nag moom moo leen ci moom moo leen ci bu ñu waxee ihdina siraatal mustaqim siraatal ladina anamta alayhim mu ne ulaayika alladina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhadaai wa saalihin léegi na gis ñi nga xam ne ñoom it yàlla dogal na ci ñoom leneen mooy dogal na ci ñoom ak kéefër foofu gis nga yàlla ni mu ja doomu doomu aadama doomu aadama su mbindeef loo nekk nekk yéefër sax du tere yàlla su lay tudd ci lam la war a tudd mu tudd la mm-hmm. feneen fa da ngay dégg mën na siraatal lazina anamta alayhim nga dégg mën na la xayril maxduubi alayhim wala daalin nga dégg foofu mu ngi wax ak yéefar yi wa qaalatil yahudu laysa li nasaara ala sayin wa qaalatil nasaara laysa li yahudu ala sayin yahud yi wax ne nasaara yi duñ dara nasaara yi tamit nasaara yi tam wax ne ne yahud yi duñ dara. Hmm, kon baara tontu la nag mooy xayril maxduubi alayhim wala daalin. yàgg ci mbir mi. ñàkk bandu baat yàgg na ci mbir mi comme ni nga ko mënee rek. Mhm. ni ngay ñàkk a nee baat yow. noonu noonu rek la su ko defee. Mhm. lii mooy faatihatul kitaab. Mhm. ñu gën koo xam ci sabaan minal masaani. juróom ñaari laaya la. am na ñu wax na ci bismillahi rahmaani rahiim la laaya li laaya gi jógee ko. am na ñu wax na ci alhamdulillahi rabbil aalamiina la laaya gi jógee ko. mais em ak loolu yëpp dégg daaj. dégg képp koo xam ne nii li may bëgg a wax nii yaa ngi koy soxoo di ko def danga dem ba yow yaag suñu borom dootu leen nekk ñaar benn ngeen. loo ne amal. loo ne amal rek. suñ borom da koy amal. mu fekk nag mu nekk ci lu neex yàlla mu fekk nag mu nekk ci li nga xamante ne nii. ah dëgg dëgg dëgg dëgg su su su soo soo ko soo ko ñaanee yàlla du ne gàccewu sa diggante sa borom. bul ñaan yàlla yàlla lor benn mbindeef. bul ñaan yàlla nit mu dee. bul ñaan yàlla nit mu feebar bul ñaan yàlla nit bu damm bul ñaan yàlla nit mu nekk jafe-jafe ñaanal yàlla li nga xamante ne yow su la ko yàlla joxee loolu mën na defar sa àddina. mooy lan dégg daaj boo jëlee faatixatul kitaab. Mm-hmm. nga julli ñaari rakkaa. Mm-hmm. benn rakka bi nga jàng fatihatul kitab jàng fukki ayatul kursi yu ak ñaar ñaareelu rakka bi nga jàng fatihatul kitab jàng lixlaas fukk ak ñaar soo sëlmalee nga jël sa kurus téeméeri per la nga bàyyi benn per bi mu des quatre-vingt-dix-neuf moo taxawee asmaullahil husna yi mhm. nga liggéey fatihatul kitab quatre fois quatre vingt dix juróom ñeent quatre-vingt-dix-neuf fois mhm. mhm. mu taxawee asmaullahil husna yi soo ko defee nga ne yàlla sab jaama ngi soxla bii ma am ci kayit bii ma war a dem suba pour di ko déposer ji wala ma dem jëli rendez-vous. ambassade ambassade. yow yàlla sab jaama ngi. mooy dem mooy fekki say jaam. te la muy uutu jaam lañu ni yow. ndax mbindaa foon yëpp njabootu yàlla lañ. yàlla moom moo ne mbindeef yëpp njabootu yàlla lañ. kon nag su fekkee da ngaa taxaw foofu noonu nga ñaan yàlla ne ko sab jaama ngi nii mu ngi dem ci mbir mu ngi lay ñaan mbir moomu muy dem nga leeralal ko dégg daal lii képp koo xam ne def na ko ci faatixatul kitaab te saxoo di ko liggéey nag ci safasun 313 di ko ko liggéey ci jay suñ dina la tàggatal àddina dina la tàggatal jamono dina la yombalal wërsëg lool lool lool lool te du la jafee mm-hmm. képp koo xam ne dégg daaj mm-hmm. yaa ngi liggéey jay suñ faatixatul kitaab di ko liggéey ci bërëb bu fekkee dafa am ñu la fa bañ ñoo xam ne dañ la noonoo ci barab ba mhm. soo koy liggéey da koy dëpp noo koy dëppee mooy da ngay liggéey trois cent mujjee treize bu fekkee da ngay xëcc nag loo xamante ni dafa jafe ci yow te mënoo koo jot da ngay da ngay njëkkee lu li muy treize li mujjee trois cent mhm. dégg daal lii képp ku ko soxoo mhm. dootoo ooti sëñ Maxtaar téléphone waaw wala ma demba wala ma sàmba wala ma sàmba wala ma demba di ko oo téléphone di ko wax soxla te yàlla dana la dana la dana la ñoŋalal wërsëg dana la beesalal wërsëg te dana la tàggatal doomi aadama yi ndax faatihatul kitab yàlla waxut faak jullit ñi rek wax na faak éefar yi te àddina ñun ñoo ko bokk ñun ak ñoom yowooti nasaraan ñëpp yéen a ngi jëflante ak nit ñi ci biti képp koo xam ne yaa ngi koy def yàlla da lay tàggatal xoli doomi aadama yi yàlla dana dem ba tàggatal la mbindeef yi ba ne sax yow dafa am leneen lu nekk ci yow lu du bi nga nekk wala am leneen lu nekk ci nga nekk du fekk na da ngaa loo xamante ne dafa foor ci yàlla muy faatihatul kitab nga xam ne ismullahi al azam yi ci génn duñ ko wax mu ko ci caméra bu ma ko doon wax ci caméra bi caméra bi di ëpp naa taxaw di ko wax ci télé waaye na li ma ci man mooy joxe ko mooy lim boobu noonu képp koo xam ne soxla na ko xaajoo moom nit dootu taxaw moom di la di la ko di la ko laaj. moo ko si àddina ñu ñëw ci jàkkaarloo diggante Boy Niang ak ñu ne Boy Niang bokk na ci mbëri dàq rasu waaye mbëri nga xamante ni tamit ñoo gën a naqaree bëril ci làmb ji euh, Modou Lo li mu def Ama Baldé tax na ñu bëri ne Modou moom bu jàppee Boy Niang da koy war jàll ñu ne déedéet Boy Niang ku ñu jaar jàll nga ne ma ci signature bi. ci la mbër yi nar a tey bëggoon naa nga leeral jàkkaarloo Modou Lo ak ki nga xamante ni mooy Boy Niang. mën naa cee njaan ngant. Mm-hmm. Ah, ma ne. ndax mën naa ñaan ngant ci làmb ji. ah gaa ngi lay déglu daal yow laay laaj ma ne ndax mën naa la ñaan ngant ci làmb ji nee ma wala déet. la neexee ñaan la ngant. dégg daaj mm-hmm. man du ma sëriñu mbër. Mm-hmm. man. du ma sëriñu mbër. Ah déedéet. man du ma ñaanal mbër damaa taxawoon fii ne la waxal Modou Lo ak ñi nga xam ne ñoo koy ngemb wala ñooy wax ne ñoo koy ngemb ñu préparé. ndax am nañ combat. ndax man mu booy ñaa mooy suma mbër. waaw loolu laa waxoon. waaw mais man du ma sëriñu mbër. Hmm. mosoo maa gis làmb du dem ci làmb du ma seetaan làmb. Hmm. lu dul ma toog suma télévision bëre am ma toog seetaan ko du ma dem stade di seetaan lamb du ma gàddul benn nit butéel ci àddina di ko sotti di ko ko sotti ak ku mënti doon du ko def ci àddina mu ko mbëri jaraluñ ma ko mbër moo jarut mbër moo jarut bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot bàyyi sa lawraat yi nga amee ak say say say say say say ibada di dem stade di toog lamb ci boppam rek dafa xaraam mut la nag lamb fëttee ko yaramu neen di bëre dafa xaraam te képp ko xam ne nii dégg daaj yaa ngi jug di dem ci lamb di seetaani mbër dégg yow ma dem di seetaan yi toog ci stade ba ñi ànd ak mbër mi ñi ko ngemb ñi tëgg làmb ji yéen ñëpp yàlla rëbb na leen laaj ma lu tax dégg daaj timis kenn du ko wàññi ci julli waxtu yi dañ koy wàññi yëpp mhm. ba mu des timis mhm. timis ak julli suba kenn du ko wàññi mhm. waaye waxtu làmb amee si senegal del xool waxtu julli rek lañ koy def. muy diggante tàkkusaan ak timis. man nag moom laa am moom ci lay jaamu yàlla. moo tax du ma dem stade tax ma ñaan ci ngant mooy dama ci am problème problème bi ma ci am mooy dama am ay nit yu ma yàlla booleen ñu bëgg ma lool ñii féetee ci Boy Niang ñii féete ci Modou ñu ñaan ma ne ma wax nga ne yaay ngemb booy ñaa taw billahi lazi laa ilaha illa hu maa ngi lay kitaabul ci yàlla ne su ma ngemboon booy ñaa daan Modou Lo hmm. man woon booy ñaa man mu bëreeg Modou daan Modou hmm. li ma lay wax nii nag dafa am fu ma ko teg hmm. waaye nag ñooñu bañ waxee damaa far génn ci loolu nga xam ne jëloon naa comme waaye di ñaanal suma mbër ndax mooy Boy Niang man moom lay supporté ci làmb gannaaw ba ma bàyyee Balla Gaye Boy Niang mooy suma mbër damaa waxoon ne suma mbër mii képp ku ko daane rek yaay suma mbër Balla Gaye ba ko Boy Niang daane laa taxaw ne kii am na cër ci làmb ndax Balla Gaye képp ku ko daane ci làmb rek am nga cër ci làmb lii cëram nag ak wërsëgam ci làmb dana ko jël moo tax moo tax moo tax dégg ma koy supporter di ko ñaanal yàlla waaye ngemb la ma ko naroon defal. di ko ko yebee moom kooku génn naa ci ndax dama bëri fant ci côté bële ak ay soppe. bari ci côté bële fant te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk. bag ma woowee rek am na loo ma wax kon nag jaaxaanaay gi nga xam ne nii man moom laa war a tëddee ci diggante Modou Lo ak Boy Niang danaa ko tëddee waaye nag du tere ma ñaanal suma mbër mi nga xam ne moom laa bëgg mu daan. Euh, politique bi tamit bëgg naa. làmb ndax làmb li tax mu bon mooy. yow boo jaay dem sax. booy dem ci làmb sax bu yàggee yow si sa bopp yow lii mbëri di def yow yàlla yàlla yàlla yaa wax lu garaaw lamb dafa doy làmb lu yéemal lamb moo tax làmb boo cay dem danga nga war a a pare ko defee rek am nañ la man dara mën mën nañoo sànni dara rek mën mën mën mën def mbër mi tamit des fois ñu mañ koo jàpp jàpp jàpp kat yi ka fa teewoon làmb baaxut sëñ bi yàlla dimbali rek billaay làmb baaxut làmb baaxut loolu daal mooy li nga xam ne moom laa fi indi woon comme waxtaan dégg daaj maa ngi nuyu dégg suma yaay yi ne Dakar dégg daaj dama am fii ay maire yoo xamante ne ni dégg daaj dañuy dajale seen i njaboot su ma waree waxtaan ñu jël seen i njaboot yëpp teg di ma déglu muy ay yaay yu baax a baax dégg daaj di jël seen alal di ko yónnee sëñ maxtaar di ma ziyaara te yàlla xam na ne soxla wuñu sax ñaan maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla ndakaaru njaay jigéen ñi fi nekk ñëpp rawatina suma yaay yi maa ngi leen di nuyu dégg daaj maa ngi nuyu waa Amérique Amérique nag amal naa leen njukkal gu rëy mm-hmm. te insha allahu rabbi taala maa leen ko dig fii ci suma émission njukkal gi ma leen amel dinaa leen ko delloo mooy danaa dagg bee insha allahu comme ni ngeen ko bëggee mm-hmm. ñëw foofu Amérique seet si leen insha allahu rabbi taala comme ni ngeen ko sàkkoo ci man mm-hmm. def ak yéen foofu ay jotaay faj seeni xaajo yi nga xamante ni am ngeen ko insha allahu ndax ñu ngi waaj a taxawal benn yaa ngi dégg eh, eh, cabinet boo xamante ne dégg daaj cabinet bi faj aajo lañ ko tuddee bu jaamu yàlla am moo xam muy feebaru rab moo xam muy feebaru seytaane moo xam muy feebaru jinne moo xam muy feebaru ngelaw moo xam tànk yi métti moo xam bopp bu lay daaneel moo xam biir bii métti dégg daaj waaw incha allahu rabi taala buñ koy taxawalee buñ koy ubbi Amérique lañ koy ubbee ji incha allahu rabi taala képp ku fa amee rab bëgg jëkkër mu tëla maa ngi ñëw te su ma ñëwee incha allahu rabi du ma fa jógee te takkuñ la xale yi nañ delloo ci seen xel mm-hmm. dégg daaj réew mii mm-hmm. Sénégal la tudd sant Njaay ñu dëkk fi ñun ñëpp bokk ko dégg daaj nañ delloo si xel yi dégg daaj nañ di yërëmante dégg saaj nañ di jëlale nañ di jéggale dégg daaj nañ raxas xol yi ba mu set nañ di jëlale te nañ di jéggale te dégg daaj buñ di xeeb suñu wërsëg yi ñu yàlla di jox dégg daaj nit du xeeb xeeb wërsëgam doomi aadama sabab rek nga am ci sa wërsëg wërsëg wa nga xam na ni moom nga war a a am pour dundalee ko sa njaboot ëllëg wala nga am ci teraanga ko yàlla yalla la ko jox yàlla moom moo la ko jox ndax yàlla moom mooy wërsëgal doomu aada aadama mm-hmm. inna allaha yarzuqu man yasaa'u bi xayri hisaab yàlla nee na mooy wërsëgal nit wërsëg woo xamante ne nii ni dafay uute ak lu ñuy natt mm-hmm. kon doomu aadama bi mënoo xayma ne yow lii nga war a am ba tànn ne da ngay dem benn dëkk pour amee ko fa mhm. moo tax maa ngi digal xale yi nga xam ne ñu ngi jaar ci gaal yi ñu ngi jaar ci avion yi naa dañuy dem Amérique mhm. nekkut ne Amérique rek mooy dëkku tekkiwaay bi mhm. dégg daay dëkk bii am na ay nit ñu fi nekk ñoo xamante ne ni dégg daay lim am yëpp génnuñu Sénégal bañ koy am lépp fii lañ ko amee wëññi boo gis nag ci benn lay commencé waaye nag boo ne da ngaa nekk ndaw ne da ngay xëy xëy xëy rek rek rek rek rek dem Amérique di yónnee ay conteneurs oto comme ni nga gisee ñu koy def ña koy def xamoo fañ jaar ak bañ koy def te lañ daj ba am ba am ko di ko def nga defee ne da ngay dem Amérique tey tey tey tey tey tey tey tey li nga bëgg Amérique tey tey tey mu sotti tey tey tey tax nga jël xaalis bu bëree bëree bëri dagg ko dem te la nga jël boo ko jëloon investir ko ci àll bii def ko ay tool wala nga jël yar ay ganaar ay poussin yii di jaay ah dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la ngay dabu ji foofu la ngay sonn ji foofu doo ko sonn fi te li nga bëgg da nga ko am wërsëg xàccuwaay woo gis nag dóor boo gis rek xàccuwaay wërsëg la kon nag nit ñi bu ñuy xeeb li ñu am benn boo am wala ñaar boo am bu ko xeeb ndax nit a ngi toog amul dara Sénégal nag dafa nekk réew moo xam ne dañoo mën a xeeb wërsëg yàlla daf lay may benn liggéey palaasu liggéey kaay nga ne fa weer wu dee nga am fukki junne nga xeeb fukki junne di dem di dem foo xamante ne boo fa demee coono ga fay daj. ñàkk gis ngay ñàkk gis sa njaboot gi. tumburanke gi ngay tumburanke la nga fay dund ci jafe-jafe soo ko dundoon sa réew te nangoo toog xam ne fii nga war a tekkee li nga bëgg da ko am waaye xotti désert yi di dox naa da ngay jéem a dem Amérique wala xotti géej naan da ngay jéem a dem Espagne te Espagne di réew Sénégal di réew ëpp leen barke ëpp leen ay ñaan ëpp mag ñu fi suul ëpp ñaan yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw fi ñëwati fi ñëwaat fi feeñu fi xaadimu rasul wax ci moom maam alaaji Malick wax ci moom Cheikh Ibrahima wax ci moom Malaay Abdoulaye wax ci moom demet demet demet demet demet demet da gis ne mboolem luy turuux ci àddina bi yëpp wàcc na Sénégal yow nga am dëkk bu mel noonu war a toog pour liggéey sa réew ñun ñëpp ñu génn réew mi baleen ñi fi des nag laay wax yéen ñi fi des dina am sens mm-hmm. dégg daaj ñi dem teel vidéo bi nga dencal ma ko archive mm-hmm. ñi jël avion dem dem dem génn réew mi dem amuñu sens eh. ñi nga xam ne des nañ fii nag fii ci réew mi toog ñoom ñoom ñoo am sens te maa ngi maa ngi lay kitaabal ci yar na la lii danañ dem ba maag yow mën na la tegal vaar bi nga seetaan ñi dem ñooñu moom dama leen man ñi dem Amérique. ñi jaar Nicaragua ñi jaar Nicaragua dem Amérique dama leen yërëm. te man maa la ko wax fii képp koo xam ne ni jaar nga ci avion dem nga guraaw waaw yaa ngi dund jamono ji jafe-jafe. Mhm. te genn wàll nit ñi dem ñëpp dégg daaj. waaw ñu si bëree bëree bëree bëree bëri fii ñu jëm ci ay weer du yàgg dara. danañ ñib si waat Sénégal lii man maa la ko wax. ñi fi toog nanga xam ne ñu ngi fi. Mhm. des seen ngor. Mhm. ak seen i jom. Mhm. ñooy ñi nga xamante ne nii ba xare di am. ba xare di am jamono. dégg lu baax li ma lay wax ñi toog ci réew mi jamono ji jàpp seen ngor. toog nangoo toog fi pour liggéey. jamono yi daan mag ñi di xare. ña seen maam daan daw ñoom ñoo daw dem nii Guraguwa. gone yi dem Nicaragua seen maam yi ba xare daan am ñoom ñoo daan daw ñi toog ci réew mi nag mooy ñi nga xamante ni seen maam yi bu xare amaan ñooy toog résister jël seen bakkan bi tay la ko ci réew mi ne dañuy dee waaye liñ bëgg Sénégal day am salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aco dégg ngeen si Matar Soxna borom bi waxtaan wu am solo bi mu waxtaan nekk waxtaan wu am njariñ nekk waxtaan woo xamante ni képp ku ko déglu rek xam ne a boroom xam moo doon waxtaan leeral yi mu leeral tamit am na solo bokk ci li nga xamante ni xewoon na Euh, ci euh, yi weesu ci dëkk bi mais gis ngeen euh, li mu adressé tamit muy parole boo xamante ni parole lu dëgg la ca ña jaaroon ca yoon wa dem foofee ca Amérique jaare ko ca Nicaragua yaakaar naa leeral lim ci leeral tamit dégg ngeen ko borom xam-xam la waaye càngar gi tamit lim ci wax nee na dee rek moo lay tàggaleeg moom kon càngar gu am solo la muy loolee nekkoon ca li nga xamante ni moom mooy leket gi Sëñ Maxtaar Soxna borom biddiw yi ay seen mbokk yi numéro yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot yéen ñi ñu doon topp dañuy suivre ci improtive yi yàlla na ngeen bari jàmm ci dara jeey Muhammad Rasulullah